ginnaaw lakk gi nga xam ne moo amoon ci dëkk bi di Njalaxaar délégation boo xam ne sous-préfet bu Ndam ànd ak maire bu Touba ak ay conseillers ak yeneen kilifa ñu demoon doon jébbal ndimbal waa dëkk bi massawu leen ndimbal googu ñu xayma ko ci ñetti million ci suñu koppar li nga xam ne mooy taxawaayu commune bi mais bi ñu waxtaanee démb ak saisir suñu bureau municipal waxtaan ak administration bi muy sous-préfet jëloon nañ trois millions ci ci ci ci ci indil leen ko te ndimbal trois millions yi niñ ko def mooy dañoo jënd juróom fukki bërigo yi pepp jënd juróom fukki bërigo yi ceeb boole ko indi leen jël téeméeri junni ak fukk boole ko jox leen ngir ka du dara sax waaye ñu mën cee ja tàmbali ko dund waaw ba bu ëllëgee leneen lu ñëw fekk leen ci waaye nit koo xam ne li yoroon lépp jeex na donc moo tax indil nañ leen juróom fukki barigoy ceeb di cinq tonnes indi leen juróom fukki barigoy dugub di cinq tonnes indi leen téeméeri junni ak fukk ci xaalis ngir ñu mën koo jël ñu jàppale leen ko wane ci yéene commune bi rek la ci turu xalif général de Mouride. kilifa yi bi ñu agsee ci dëkk bi wër nañ mbooleem bërëb yi nga xam ne dafa lakk ba jeex nemmeeku ko ginnaaw loole sax ki nga xam ne moom moo di chef de village bi yëkkati na fa ay kàddu xamal leen dayo gi nga xam ne lakk gi amoon na ko ak méttit gi foo ko takk mu weesu ko waaye nag sant kilifa yi nga xam ne indil na leen ndimbal gi ci tuuru mboolem ñi nga xam ne ñoo lakkale ci dëkk bi. fukki kër ñoo fee ñoo fi yàqu fukki kër la waaye ñaar fukki néegi ñax la ak juróom. yoo xam ne yàqu na ñaar ku nekk yàq ak juróom li fi lakk nag ci ndingi ngooñ ak gerte ak ñebbe ak mboolem la ñuy dund moom mënu maa taxaw di leen ko expliquer moom nawetaan bi gis ngeen dem demee nawet bi taxul ko demut gerte kenn am koon tuuti lañ ci amoon léegi ngooñ la nit ñi bëri la woon amoon nañ ngooñ lool lool macha allah ndax ñi ay 200 saak ñi ay 100 saak ay leneen leneen waaye lépp lakk na ñebe tam dëkk bëri na ci dëkk bi waaw ñebe ji bëri na ci dëkk bi lool waaye noonu la lépp lakke ba jeex dugub yi ci liñ ci jotoon am nga xam ne ñëpp boo jot nañ ba jot a stocké denc nii kenn ko dese ab ab ab fépp nekk fi. ñëw moom sant ci yàlla sant ci yonent bi sant ci Sëriñ Tuubaa sant leen bu baax a baax nag te di leen ñaanal lépp fu ñu bëgg a egg yàlla na leen fa suñu borom eggalee waaw ñoo ngi leen ko ñaanal bu baax a baax ñoom waa dëkk bi profité nañ ci occasion bi am ay doléance yoo xam ne fësal nañ ko ci kanamu kilifa yi mu jëm ci courant ak ñàkk kaaraange goo xam ne am na ci village bi. ci courant ndox ñu ngi ko doon ñaan di ko dagaan monsieur le maire mosoon nañ koy wax noonu ak ci moom mu jotal ñu ko ñu ko war a jotal wax dëgg yàlla ndax euh, courant bi Bakura lay am suñu dëkk bii di Gumbaam suñu dëkk bii di Njalaxaar suñu dëkk bii di Mbayeen lépp lépp si kilomètres la waaw wax dëgg tëlënam na lool ndax dañuy jàq fi ñu bu guddi dañuy jàq ndax dëkk bi euh, ay sàmm te gis nga euh, euh, sécurité amu ci dara dara amu fi waaw lu nekk def nañ ko fi ci nii maam day at mu jot daaw euh, nawet bi képp fukki xar ak nangam yoo xam ne dem sàcc nañ ko fi ci géej gi. waaw ak i nag nag yu jëkk ba yàgg dañuy dem doo xam fu jaar ndax day lëndëm suñ ko jëlee doo xam foo jaar waaw xam nga sàcc ko doo xam foo jaar. village bi di Ndialkhare dafa bokk ci commune bu Touba moo waral Abdou Lahad Ka dalal seen xel ci doléance yi nga xam ne yëkkati nañ ko ne daan ci taxaw ngir saafaraal leen ko. bi ñuy wate budget bi ñun ñoo fa bokk toog l'ensemble de presse bi mi ngi fa woon conseil yi mi ngi fa bi ñuy def orientation bi aussi village ah, chef de village yëpp ñëw nañ def nañ ci suñ budget addition d'eau yoon nag piste rural def nañ ko mais ci du programme bii nga xam ne fii la ñëw tey bokku ci woon am na nag ñetti dëkk muy guy mbaam muy njalaxaar muy mbaam yëpp war a pare nañ ci pour programmer leen ci def fi yoon yoo xam ne dana lëkkale dëkk yi ngir dem bi ak ñëw mën a jàppandi ndax gis nga bi sapeur pompier yi di ñëw rek amoon na jafe-jafe ci yoon gis nga oto bii saf ceeb bi rek am na jafe-jafe ndax fii dafa bëri suuf yoon yombul waaye ñu ngi ciy bàyyi xel. su weesoo ndimbal yi nga xam ne kilifa yi indil nañ leen ko. am na yeneen bonne volonté yoo xam ne jot nañ leen fee jiitu indil leen dimbal waaye taxaw leen ngir ñu defaraat seen kër yi nga xam ne dafa lakkoon te lakk gi jéggi yoon dayoo lool